ñun ñoo doon grève de faim dañ doon grève de faim du dara lu dul ut formation dañoo sonn woon eh, eh, yàgg di xaar formation waaye tey état posé na acte boo xam ni dama ne dix ans yi ngi nii musu ko posé loolu faaw ñu xam ko acte bi moo di état wone na ni que lim doon def du parce que sagante de mais am na li tax waaye tey pare na pour gunge ñu si formation bi pour mu jeex takk takk takk. donc na ñu ngi koy gërëm si loolu. ñu ngi leen gërëm ñoom autorité ministérielle yi le ministre particulièrement et son directeur général. mais li ñu loo xam ne aussi loolu des na suñu xel. marqué nañu mooy Saourou Sène le directeur général du SAEMS le secrétaire général du SAEMS plutôt excusez-moi kooku moo facilité li yëpp parce que syndicalisme aussi bokk lii bokk na ci. da ngay résoudre problème yi ni rek euh, ñu ngi am mbégte tey fekkee rencontre bi nga xam ne tey def nañ ko au niveau de la direction de la formation et de la communication muy ndaje mi nga xam ne dañ ko tenir ci euh, situation professeur yooyu nga xam ne dañ doon def grève de la faim parce que nag dañu yàggoon di xaar mais li nga xam une mise en position des stages alors xaar bi nag lu taxoon mu gën a yàgg que depuis 2012 il faut le dire. Euh, dafa bëri woon ay jàngalekat yu bëri yoo xam ne ñu ngi doon xaar ñu mettre leen en position de stage et te loolu nuñ ko doon xaaree amewul woon noonu kon loolu bu mu amee ñoom ñu def grève de la faim ma dem seeti leen waxtaan ak ñoom woote au niveau des autorités du ministère de l'éducation notamment ci directeur de la formation et de la communication mu jàpp ndaje tey ci ngoon alors ndaje bobu nak biñ ci duggee waxtan nañu bu baax a baax a nañ ni formation bi euh, mise en position des stages bi commission bi non seulement dinañ ko tenir à partir du 15 novembre mais mieux dinañ def tout pour que quota yi ñu yokk ko ma doli ci wax rek formation bobu enseignement supérieur à partir de la FASTEF Le jàpp ni bu quand même une solidarité gouvernementale entre le ministère de l'éducation et le ministère de l'enseignement supérieur personnels yi nga xam ne ñooy les personnels de l'éducation nationale je crois que pour ñu former leen Wurul jafé nonou d'autant plus que formation bi FASTEF la mais rien n'empêche à ce que ñu élargir à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour que quand même dans le cadre d'un élan d'une dynamique mais situation yi nga xamné situation de non mise en position des stages ñu mën ko dépasser té vraiment biñ ci il est heureux que nous, ci sen bop ñu gis ni comme l'idée pour nous lu concret il faudrait que ñu suspendre mot d'ordre bobu ñun en en tant qu'organisation syndicale nous devons veiller ci engagement yooyu nga xam monsieur le directeur a bien jël na leen ñu ko ciy gërëm nag bu parce que bi nous ko c'est avec promptitude la daal di wax ni kon nañu daal di créer ndaje pour xool naka la ñuy trouver solution kon vraiment vraiment solution bu ñu ko trouver tamit dama koy rafetlu en tant que syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire et di ci sant bu baax a baax. xam nga tey jii journée mondiale des enseignants ñu wax ni am na ay enseignants yoo xam ni de la faim rafetul moo taxoon ñun ak waa SAEMS maanaam ministère bi ak SAEMS parce que ministère bi ministre bi moomu taala partenariat la wax ñu taxaw pour régler problème bi ñu dajaloo waxtaan ak sunu collègue yi ah ne leen ministère de l'éducation nationale musul xalaat arrêté ay mise en position de stage parce que ministre bi jàngalekat la fi nekkal ak élèves yi man mii di wax yow jàngalekat yi ak élèves yi ndax su jàngalekat amul élève amul ministre du am euh, Sëwru seen secrétaire général du am man mi DFC du ma am kon sunu li nga nga xamante ni moo tax ñu am faw ñu ñu toppatoo ko ministre la bi muy ñëw booba yëf yi mu ngi ko fekk 60 euh, ñoom Sëwru seen nii G7 CAS ne ko dañoo bëgg non seulement nga yokk ko waaye discipline yëpp ñu jëleen en charge mu yokk ko de 200 discipline yep mu jël en charge malheureusement entre temps Covid bi ñew paralyser affaire yi ensuite nous avons quelques difficultés ci ci financement bi ndax légui dafa nek formation à à à distance waaye tay loolu lépp nekk na suñu ginnaaw. jël un engagement ferme que entre 15 novembre ak 15 décembre commission bi comme ni muy chaque année. dina revenir chaque année désigner un quota. Je une mise en position de stage à la FASTEF. C'est ce que engagement bi nga mm-hmm. état